programme yoonu yokkute ci biir programme boobu mu amoon bànqaas boo xamante ne daf ko jagleel néewtum doole yi président ne day créer lu ñuy wax bourse de sécurité familiale maanaam ndimbal yoo xamante ne dañ koy jox ñi nga xamante ne seen doole bariwut pour ñu di koy jëfandikoo ndimbal boobu mu ngi toll ci ñaar fukki junni yi ñu lay jox. ci ñetti weer yu ne ñu jox la vingt cinq mille euh, président de la république am na yéene te def nañ euh, lancement yi ak le premier ministre fii ak war na fexe ba trois cent mille ménages ñetti junni euh, kër mën cee jot li xew ci mbir mi mooy madame Anta muy délégué à la sécurité alimentaire moom la président Macky Sall dénk liggéey boobu bourse yi du bourse pour APR bourse yi du loo xam ne dañ ko war a jox ku bokk ci mouvance présidentielle président daf ko jaarale ci préfet yi ñu dem ci chef de quartier yi ñooñu identifié képp koo xamante ne néewtum doole nga ñu recensé la defal la sa fiche ñu jox la ci bourse yi madame Anta Sarr bu yëkkatee quota ne ñii kat dinaa ko jox képp kuy jàppale président Macky Sall ndax ñooñu euh, mën koo jox seen ay nit loolu ñun yaakaar na ne dañ ko war a jaarale ci yoon mais madame Anta Sarr ni mu ko doxalee ñun dañoo jàpp ne def ko doxalee doxalum féete parce que dafa woo ministre Augustin ne ko quota bi war a dem Thiès naka lañ koy doxalee. Augustin ne ko 70 pour cent yi mën nañ ko yóbbu ci communauté rurale yi 30 pour cent yi ñu dugal ko ci biir commune bi ci biir commune bi Augustin Tine ne ko wool Abdou Mbow mu waxtaan ak yow nuñ ko war a séddale bañ ko joxee Abdou Mbow dafa ñëw Thiès daal di noppi ba délégué envoyé euh, commissaire bi war a ñëw mu jël ay nitam ànd ak ñoom kër délégué Souleymane Kanté ñu toog fa lay toog yenn saa yi ba minuit une heure du matin di enregistrer militants yi nga xamante ñoo bootu ci ñoom mu am ñoo xam ne dañoo bokk ci ñun ya euh, xamuñu woon mbir mi nu mu demee ñu dem fa pour bindu ñu toroxal leen ne leen bokk leen fii ci Lamine seen ngeen bokk ci Thierno Alassane Sall ngeen bokk wala ci Maodo Malick ngeen bokk waru leen ci am bañ ma ko waxee ma daal di dem ba ci préfet laaj ko mu leeral ma ne ma quota boobu quota bu Anta jox. Abdou Mbow la pour ku mu bokk ak waa Thiès kon dafa jaatu woon Abdou Mbow bu ñëwee même président Macky Sall bu ko joxoon rek ne ko lii pour yow la la gënoon a rafet bu fekkee ne xam ne ne ñu ñëpp président Macky Sall la ñuy liggéeyal buñ ko joxee dara nañ ñëw woo képp kuy jàppale président Macky Sall nga recensé say néewtum doole ñu jox leen ci bourse familiale yooyu mais du yoon ñi nekk guddi ak bëccëg di xëyal di gontal président Macky Sall ndimbal ñëw. mu am ñi ko accaparé ñu ko aakimoo yaakaar ne ñoom rek ñooy nag ci biir parti loolu ñu dañ ko rafetuwul ñu ne madame Anta Sarr nag yoonam nekkul ci xeex politique ak fépp mën a doon ci Sénégal liñ ko jox joxuñ ko ko pour mu xeexee ko ci li liñ ko jox yoonu politique nekku ci juum na sax dama ko dugalee ci wàllu politique ndax président Macky Sall sant ko loolu ñun nag décision bi ñu jël mooy de partir bi bés ni ki tey fii ba mbir mi di sotti amul benn jour boo xamante duñu def benn plan d'action pour mën a xeex loolu président Macky Sall jëlaat parti bi jaaralaat ko ci yoon parce muy tey muy suba tey la gën a engagé wu ci ginnaaw président Macky Sall pour liggéeyal ko liggéeyal ko pour que 2017 ñu mën ko falaat dès le tour kon dafa amoon solo pour ñu dajale mbooloo mi ñu xam ne waxtaan bi ñuy def man Mamadou Lamine Sène ma jiite ko dañ ko def defuñ ko parce que man dama ànd ak Thione dañ koy def parce que lii injustice la